résultat yi nga xamante ni Macky Sall ak gouvernement am génne nañ ko ci élection yi ñu génn ñuy xamal ñoom askan wi ni gañee nañ élection yi ci cinquante-huit pour cent résultat yooyu dëppoowul ak dëgg dëppoowul ak li am dëppoowul ak li askan wi xalaat dëppoowul ak li nga xamante ni moo nekk ci xolu askan wi résultat yooyu aw kàcc wu mag la woo xamante ni togg nañ ko préparé ko ñëw yekkal ko askan wi ni leen président Macky Sall jàll na premier tour loolu tax ñun fii ci force démocratique du Sénégal dañu jàpp ni résultat yooyu résultat Aly Ngouille Ndiaye la résultat juge constitutionnel yi la nga xamante ni ñoom seen liggéey lépp mooy ñu may Macky Sall mu jàll premier tour ca loolu ci ginnaaw Aly nguy Ndiaye xamaloon na ko askan wi ni moom liggéeyam lépp mooy nan la mën a jàppale président Macky Sall ba mu jàll premier tour ñuy wax ni élection yi nga xamante ni ci la génn moom la ñu génn élection yooyu jaarul ci yoon élection yi la yoo xamante ni dañu ko truqué élection yoo xamante ni ñi ngi ko def ci fraude élection la yoo xamante ni ñi ngi ko def ci xañ ay junni junni junni sénégalais yoo xam dañ leen a xañ seen àq mayuñu leen ñu daal di voter ñun duñu ko reconnaître ca li ñuy ñaan ñu organiser ay élection yu bees tant que organiser wuñu élection yu bees yooyu ñi ngi ñaan opposition yi opposition bi foofu ñu nekk ñu taxaw fa ñu rejeter scrutin bi non seulement ñu rejeter scrutin bi waaye ñoom bu ñu reconnaître président de la république bi nga xamante ni moo fi nekk muy président Macky Sall. 1 avril boobu nga xamante ni ci le président Macky Sall war a prêter serment mën a waat opposition bi def ko une date bo xamanteni ni dinañ ci taxawal un gouvernement parallèle ce gouvernement parallèle bobu buñ ko taxawalee li nga xamni moy ay institution ci pays nañu leen ñaan ñi def allégeance manam ñom ñu wuyu ci gouvernement parallèle bobu ci nga xamanteni ci ay dog ci ay seen bëgg-bëgg ak seeni dogal manam li institution force police ak gendarmerie ñi def allégeance gouvernement parallèle bobu donc bu lolu wesso FDS aussi dina génne ben téré bo xamanteni ni koy l'état de la démocratie au Sénégal génne woon na ñaari at ci ginnaw benn premier téré livre bu njëkk bo xamanteni ñi ngi ko tuddé won l'état des libertés au Sénégal mais bii ñuy c'est l'état de la démocratie au Sénégal ndaxte Macky Sall nërmeelal na démocratie bi avec Macky Sall démocratie bi dafa deltu gannaaw mo tax ñu bëgg wan askan wi wan wa Afrique yëpp ak bi démocratie Sénégal ni nga xamante ni delloo na gannaaw ñi ngi ñaan président Macky Sall aussi otage politique yi nga xamante ni jàpp na leen dugal na leen ci kaso bi ku mel ni Khalifa Ababacar Sall Mori Gueye ak ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi ci kaso bi nañu leen génn nañu leen bàyyi may leen ñu ñibbi si ñibbi seeni seeni kër